saadatu daarayni mm-hmm. macha allah macha allah loolu de moom dëgg yàlla ah, yaakaar naa xol yi sedd na soxna Asma Fatou vraiment mu nekk am solo loo xam ne nit ñi dañ ko bëggoon ah, di ko laajte kañ ko tàmbalee def naaral bi ak inspiration bi fan la jógee sëñ Ismaïla xam xam naa lu war a toll ci ay ñeent at yooyu. Mm-hmm. fan la jógee da nga toog ba yàgg mbiri di kala wala da gis ne naa ni koy defee yow tamit. baat lañ yor war ngaa mën a sóobu naa naa naa Euh, soobu ci mbir yi daal moo waral ma di ko def. mais ñu gis ne dafa neex nit ñi te ñu koy laajte dafay bari lool léeg-léeg buñ la déggee nga koy def ci jàkka ji mm-hmm. nit ñi dañ koy laajte lu baree bari. wallaahi mm-hmm. wallaahi wallaahi mm-hmm. loolu day euh, ñoo baax rek. ndax euh, lépp loo xam ne dafa tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dafay am fasaaxa. xam naa naaral boobu ñu nga xam ni. moom la waa kër yonent bi. sallallahu alayhi wa di def nga xam ne muy arab yi hmm. euh, alxuraan ji ni ñu koy jàngee xam nga xam ni hmm. ku koy déglu rek la am yëg hmm. xam naa li tax ma koy roy ci xaside sëñ Tuubaa yi di ko jéemi loolu moo waral mu nit ñi nit ñi di am yëg-yëg waaw mu dugg nit ñi ah. dugg nit ñi voilà mooy jërëjëf euh, Serigne Ismaïla as ma yow ma jox la nga tàggoo daa daa ñu joxaat Serigne Ismaïla ak ñi nga xam ko yaakaar naa ne jotaay bi moom bu ñu ko toppoon mën naa <laughs> waaye xol seetlu na te incha allah rabi fas nañu yéene jotaay yi gën a yaatu incha allah soxna si. waaw doon na jotaay bi moom am na solo macha allah. Mm-hmm. di sant bu baax di gërëm suñu invité bi di suñu Ismaïla. Mm-hmm. di ko ci yombal gi ñu mm-hmm. yi nga xamante ne yëkkati na ko fii. di ñaan rek lépp lu mu ci jàppale ak ñi nga xamante ne ñooy jàpp ci caméra ba mën a yem ku ci mel ne Seexna ak Moussa Sëñ Fallou ak Khady Niamé xam ne jàpp ci montage bi di leen jox di daje ci beneen jotaay ci seen émission jotaay koor yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf soxna nga tàggoo ñu lay seetaan

incha allah ba beneen incha allah. tubaarikalla mm. jërëjëf Serigne Ousseynou. Mm. waaw sunu xol sedd na bu baax. Mm. Euh, ci jataay bi. Mm-hmm. ndax euh, man nañ ni suñ ñëwutoon ci lii. Mm-hmm. ñu ngi ci leneen te lii dara da ko kariwul. ndax euh, yëkkate genn kàddu. taalibeeb Serigne Touba. bég ca rek. Mm-hmm. tiyaaba ji kenn xamul moom. Mm-hmm. kon loolu ndegam suñu borom dogal na ko ci yow jaay na ko ci yaw mm-hmm. ñoo ngi lay ñaan bu baax suñu borom yokk la. te barkeel liggéey bi. Euh, te yeggale yéen yi. ñoo ngi ziare bu baax soxna maam Astou ak euh, soxna maam Faati. ñoom it euh, ku gis seen jataay bi nii. xam ni soxna su baax. fi mu war a teg tànkam rek yéen a ngi fi seen tànk. kon noo ngi leen di ñaanal yàlla yàlla jàppale leen mm-hmm. te defal leen ca barkeb mm-hmm. soxna jaaritulaahi ba mm-hmm. euh, ngeen tibb ci ba doyal di siyaare ministère bi ñi nga xam ne ñoo ne euh, fu man di toll dinu gis gisin wa gën. Hmm. muy caméraman yi. Hmm. ñoom it ñu leen di siyaar te di leen ñaanal yàlla yàlla jàppale leen. Hmm. te yàggal fi lool sëriñ Mountakha. ba lépp lu mu yéene liggéeyal sëriñ Touba. mu liggéeyee ko ca na ma ko soobee. danaa lu ko moom. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, jërëjëf euh, ñu ngi leen di sant bu baax yéen nga xam ne yéen a ngi doon topp 24 point com ci seen jotaay bi nga xam ne euh, jotaayu koor la ñu ko tuddee mu nekk jotaay boo xam ne nag lépp rek dañu koo jagleel ci koor gi ni ngeen ko gisee rubrique fi jot a jàll muy lépp loo xam ne jëm na ci wàllu wér-gu-yaram bi ci koor gi la waaye tamit lépp loo xam ne jëm na ni ko soxna associé la defee itam lépp rek ñu ci koor gi te incha allah rabbi noonu la ñuy fas yéene euh, continuer jotaay bi euh, lépp loo xam ne jëm na ci wàllu bu baax ba ñi nga xam euh, di nekk rek di jëman di jot ñu sant baax nag tey sunu gan nekkoon Serigne Ismaïla Mbaye nekk jànkatu xasaay boo xam ne ràññee nañ ko lool vraiment itam ñuy koy gërëm ci oyof gi ndax ku ci nekk xam nga ne jot amut te kilifa ku mag la Euh, programme yi ni muy bëree nga xat-xati jamono yi waaye loolee lépp terewul euh, suñ jëmm yu xeebu yi dafa bàyyi li mu jàppoon yëpp ngir ñëw waaye tamit ngir ñi nga xam ne itam ñoo koy seetaan di ko bëree loolu tamit mbégte lañ ci am bu a baax te ba ñu la xamee ba léegi baax lañu xam ci kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm te di la li nga bëgg ci xesaay bi yaa ko xam yàlla ko suñu borom defal euh, sant Cheikhouna Ndiaye mu nekkoon ci caméra bi Serigne Fallou ak sëñ Bika ak sama gars yi nekkoon ci yëpp ak soxna mi nga xam ne lépp lu ngeen ci gis ci montage rafet bu baax rek <laughs> ma njukkalee ko ko ndax man damay xulóom moom waaye vraiment euh, soxna Khady mooy jàpp ci montage bi ñu leen ci sant bu baax di leen gërëm di leen jox di daje incha allah ci yeneen yi jotaay koor balaa yàgg incha allah.